Fanta Sokunda mbirum muuraay jamono ji li nu koy joobee bari na torop mhm. rawatina la xew ci institution Sainte Jeanne d'Arc mhm. ba ñu aayee fa voile ci noonee sax gis nañu ñi nga xam ne ñoom ñoo di intellectuel réew mi ku ci nekk ak ni nga ko gisee ah. mhm. euh, ba dernièrement gis nañu déclaration bi nga xam ne euh, professeur Penda Mbow yëkkati na ko xaw su suscité quand même un peu colère euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di muuru gisuñ seen bopp ci ni nga xam ne tëree na ko ni jigéen ñi war a muuroo ak di atribuer ne que muuraay xawuta nekk un peu islamique mais c'est plutôt Uh-huh. loolu nga daal di jukki tey ngir mën cee waxtaanee xeetu muuraay yi nga xam ne uh-huh. uh, gis nañ ko ci réew mi uh-huh. waaw uh, oustaz uh, Mohamed daanaka soxna Aïcha dégg nga li nga xamante ne moom la soxna Penda wax mais ma laaj ki nga xamante ne mooy oustaz Mohamed Dia oustaz Mohamed dama bëggoon tamit nga faramfàcce li nga xamante ne muuraay fan la bàyyee ko kon fa tabarakallahu laaj nga lu am solo macha allahu boo ñu laajee muuru fan la bàyyeekoo dañoo toog Medinatul Munawwara jigéen ñi xëy dem marché jigéen ñi xëy dem tool ba ñenn jigéen ñi xëy dem rooti jékki-jékki rek yàlla wàcce ab benn ordre ne yaa ayyuhan nabi xul li azwaajika yow yeneen yàlla Muhammad waxal sax soxna yi nañu muuru ordre mu ne ko waxal sa soxna yi nañu muuru wa banaatik ak say doom yi say doomi jigéen ñi lu mu fa teg wan nisaa il muminin jigéenu musulmante yi nañu muuru yudni alayhinna min jalabibihinna ordre ba wàcc jigéen ñi commencé muuru soxna fant jour boobu Medina jigéen ñi balaa ñoo jot si aaya bi doon doon jotele aaye yi ba jigéen ñi nekkoon marché si saa si lañ jëndu kol commencé muur parce que yàlla moo digle an moo wàcc jigéen ñi nekkoon si tool ba mujj dañoo jël seen yére ya xotti ko pour nëbb seen cër yi ndax yàlla moo digle jigéen ñu nekkoon si teen ya doon root dañoo mujjoon jël xobu tàndarma yi di ko muur seen mbagg yi parce que yóbbu ñu woon lu jot mhm. parce que daawuñu woon muuru mais yàlla moo ne yenent yàlla Muhammad waxal say soxna nañu muuru nga wax ko say doom nga wax ko képp kuy musulmante nga wax ko muy muuru gis nga ordre jour boobu Medina koo romb yaa ngi koy gis ak kolom mhm. koo romb mi ngi nëbb ay cëram xool ordre ñëpp def loolu def loo xam ne yàlla moo ko santaane muy muuru. kon bu ñu la déggee bu baax a baax oustaz euh, diggee mhm. ngir soxna yu mhm. muuru. bokk na ci digle yàlla. Mhm. Euh, ci njabootu Seydina Mohamed ci kon mën nañ jàpp ne que. le voile carrément islamique. voilà parce que wax nga ko loo xam ne yàlla moo ko digle mu bokk tamit si lislaam jigéen day muuru jigéen yàlla da kaa sant mu muuru surtout jigéen du jullit. jigéen jullit parce que ba yàlla wàccee ordre bi parce que bu yàlla waxee def rek mhm. te jigéen muuroom da koy jëriñ xam tax jigéen war a muur soxna si mhm. yàlla neen zalika addina an raf na ndax da lay yokk jom jigéen buy muuru yàlla nee na day tax ñuy weg la day tax ñuy respecté la mhm. jigéen buy muuru day tax day day yokk si yow ab kersa goo xam ne macha allah tey te jigéen war naa muuru ngeen ñett Soxna Fanta jigéen war naa muuru ngeen ñett ba nga juddoo dañ laa profité muur la parce bañ na ni ngelaw dugg la nga dellu wala cat dugg la kon bañ lay jox imaam sax pour imaam tudd la dal laa muur mhm. kon jigéen war naa muur ay cëram ngir ngir ba mu juddoo dañ koo muur waaw mu juddoo dañ koo muur jigéen tamit war naa muuru parce que bu muy sëyi dañ koo muur jébbal ko boroom këram soxna mhm. kon jigéen war naa muuru ngir ñett yooyu benn ba mooy ba mu juddoo dañ koo muur ba muy sëyi dañ koo muur beneen ba mooy boo faatoo kenn du la suulee noonu soxna fant dañ lay muur kon jigéen war naa muur kon ngir ñetti mbiri soxna Fanta moo tax si lislaam jigéen lislaam dafa war a muuru waaye nan la ñu war a muuroo soxna fant loolu am solo euh, mhm. am na ñoo xamante ne dañuy muuru génne euh, euh, seen nopp. maanaam jaaro yu ñuy yi ñuy takk seen nopp yi di ko mm. génnee donc ak tamit xeetu muuraay bi nga xamante ne da ngay gis ne suñu mbokk ñi nga xamante ne tamit dañuy muuru mm-hmm. daanaka seen muur seen kanam kanam yi yëpp duñ duñ ko gis tamit yooyu mooy ban euh, xeetu muuraay baarakallaahu soxna Fanta laaj nga tamit lu am solo mm-hmm. nan la ñuy muuroo mm-hmm. Fanta jigéen lislaam nan lay muuroo mooy comme Fanta nu muuroo ni nga muuroo noonu la jigéenu lislaam di muuroo soxna Fanta. Mhm. muuru dañoo ne jigéen kanamam moo war a feeñ. Mhm. ak loxo yi tënk yi. Mhm. à part léppam da war a nëbb. lii moo war a feeñ. maa adal waji wa kaffay moom jigéen. jigéenu lislaam bu war a muuru. ñuy muuru nag di génne seeni nopp ñoo ko yokk. seeni feemu bopp la. mais bokku ci. bokk si. Mhm. ñuy muuru jël jaaru bënn ko seen bakkan mhm. seeni feemu bopp la mhm. waaye bokkul si diine ji. ñuy muuru bëgg kaa def diine ak jamono. maanaam jël kol sol tubéy bu dang mhm. def ko muy jamono mhm. kol ba muy diine mhm. loolu du diine loolu du muuru lan muy muuru mooy nga sol lu jot nëbb sa cër yi sa bopp bi bàyyi nga jaaroo wala am nga yoo xaw a bàyyi est-ce que loolu euh, bonjour dinañ dem ba def euh, précepte normal yi nga xamante ne moom lañu war a muuru peut lu mun nekk la parce que ku daan lettu mees dégg ni ah oustaz Mouhamed Diaw wax na si muuru mhm. mu ne ah xaama jël kol commencé na bu bopp mhm. ñu def tuuti mu jël jaaro teg kooku nañ ko ne déedéet bokk si bokk parce que yooyu buñ leen bàyyi faag ñi leeral leen lii bokk si mhm. parce que muuru l'islam lu mu la sant ci charia mooy sa kanam rek moo war a feeñ amul jaaro amul bënn amul dara lu tax nag jigéen ñi daan muuru di nëbb seen seen kane bi mhm. ñu ngi ko jëlee si soxna yeneen yàlla Muhammad parce que ñoom bu ñu mosaan a génn dem marché dañ doon nëbb seen cër yi parce que soxna yeneen bi mhm. kenn amul droit xool ko ba di ko nopp boo ko nobee alku boo ko nobee dee dem safara moo tax ñu far daan muur seen lépp mhm. mais yow mii nga xam ni yow mii xam loo war a yeneen bi waru la yow soxna Fanta. Mhm. loolu la may si muuru lislaam mooy nga nëbb sa nëbb sa cër yi bàyyi sa lii feeñ. bàyyi sa loxo feeñ waaw comme oustaz dañu gis ne euh, mhm. euh, euh, waaye dafa am ku ñu rejoindre léegi léegi ci ci ci plateau bi ah après nga bësal foofu sa baaraam moom mooy xalifa wa Ababacar Ndiaye mhm. mi nga xam ne dafa ñëw ci turu Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Amin tey nag ñu dugg Tiwaawana ci royuwaay fas yéene jokk ca kër googulee waxtaanee nag jaar jaaru Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin ndax anniversaire bu mu génnee àdduna ak léegi

loolu la ñu waroon a jiital sax soog leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waaleykum salaam ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi seen kilifa yi nga xamante ni yéen a nekk ay collaboratrice am mm-hmm. di doxal li nga xamante ni mu ngi jëmee réew mi kanam mm-hmm. di jiital tamit eh, ñaan jëme ko ci kilifa gu tedd gi mm-hmm. nga xamante ni yitteem yëpp moo doon doxal diine lislaam doxal àdduna kon ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santaane mu di a si Sidi Lamine Niass yàlla yokk ay leeram yal na yàlla eh, gën ko dëkkal ca xadara maamam dëkkal ko ci xadara sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa di ñaan yàlla kër gi yàlla na fi barke sax am na fi ba pare waaye yàlla na ko fi yàlla saxal Euh, sutura daa iman am na fi ba pare yàlla na fi yàlla yokk sutura mhm. employé yëpp yàlla bu ci kenn def fóot allahumma yàlla na leen yàlla jàppale ci li ñoo tuddee sabxu lisaan mhm. mooy boo àddoo nit ñi ne ndoo mhm. yàlla defal bu ngeen àddoo rek ñëpp ne jàmm ñëw na allahumma amiin eh, ñu ñëw nag bàyyi ko ca xadra ba mu di xadra Cheikh Seydil Hadj Malick Sy radiallahu taala anhu ci turu Cheikh Ahmed Tidiane Sy al Amin Euh, daanaka moo ñu woo léegi mu xaw a jagadi ci yaram. Mm-hmm. xawoon na jàpp sax bi mu ñu waxee rek ñu ne ko samaan wa taatan mooy ni mm, jëfe kilifa ndigalu kilifa moom jëfe rek moo ci des. Mm-hmm. te sawar nañ ci pour ñëw fi. ngir ñaar. Mm-hmm. ndax def ci ak sotti ci la. sotti ci la. waaw Seydi Hadj Mari si bu fekk see maam Abdoulahi Niass. mat na mat na macha allah kon ci kanam ak jàmm yow lañ ci àndal ak Fatou Diouf Faye ci rubrique royu waay waaye en attendant da ñu fekk ci rubrique mode islamique nga mën cee participer également ñu ngi waxtaanee li nga xam ne moom moo di xeetu muuraay mhm. ñu fi doon ànd ak euh, oustaz Mohamed Dia kon euh, Fanta wéyalal euh, donc comme dañu gis ni xeetu muuraay dafa bare donc donte sunu borom moo santaane bépp jigéen da nga war a muuru kon euh, euh, lan moo tax euh, soxna Penda wax ne xeetu muuraay daanaka du du diine l'islam. tabarakallah ñooñu. loolu pour man provoqué la provoqué l'islam waaye yàlla santaane muuru nga ni muuru bokkul ci l'islam moom moom mu wax loolu imma sax moom moo bokkul ci l'islam waaye muuru lu yàlla digle la te lu yàlla digle dañ koy jëfe paa moom sa waaye am na ñoo xam ni dañuy tere sax ku sol yenn sol yi di jànge seen école waaye loolu soxna Fanta yàlla nee na am na ñoo xam ni nekkoon nañ fi doon xeex diine ji doon sànni xeex diine ji alam nuxlikul awwalin ndax alaguma ñoo xam ne ñoo fi nekkoon doon sànni xeex diine ji doon doyadeel diine yàlla ne nax alaguma leen summa nutbi'uhumul aaxirin beneen génération ñëw naan tamit dañuy xeex diine yàlla ne te ma def leen ko ma leen defoon rek hmm. waaw ba tey nag kazalika nafaalu bil mujrimin yàlla ne nag ba tey yat baa ngi fi waxul nafaalu la ba tey yat baa ngi fi ku ci sànni xeer yàlla ne ma rëkk sa ndigg parce que lu mel nu muuru parce que jigéen kenn waru gis cëram nee naa daa am benn bis yenent yàlla Muhammad def visite ba mu defee visite dafa seen safara seen na fa jigéen yoo xam ne dañu jël seen karaw bopp yi takk leen seen bopp yi di tuuru mu laaj waa Jibril ñii def mu ne ko mooy ñi nga xam ni daaw ñu nëbb seen karaw góor ñi loolu rek war naa tax jigéen war a muuru en tant que responsable nga naan muuru te tamit fuñ la gisee yaa ngi yaa ngi musóoru di nëbb sa karaw man nee naa est-ce que juumul waaye moom moom wax loolu na jéggalu xam ni muuru santaane yàlla la ci diine ji la bokk waaw te tamit soxna nit boo xamul sa diine danga koy laaj nga ni man jullit la war ngaa xam lan mooy sa diine te tamit lii mu wax ni ñett ñi am nañ si responsabilité imaam yi am nañ si responsabilité parce que man raa minkum munkaran moo tax gouvernement bi am na état am na si responsable te tamit parent yi tamit am nañ si responsabilité parce que lu yàlla digle lu yàlla digle yàlla da ko digle boole ko si diine ji pour rek pour omra yàlla nee na pour muuru zalika addinaa an yuxraf na bëgg nit ñi respecté leen jox leen cër moo tax ñu ni muuru leen kon muuru soxna Fànn si lislaam la bokk waaye nag duma muuru parce que bu ma demee du ma jàng dañ may dàq déedéet laa taa'at lil maxluq bul topp nit ki ba mu lay bañ a def loos lu la neexul bala yàlla di la sa mere déedéet te wuy jur yi tamit lu tax ma ni am nañ si responsable sa doom digal ko muy muuru waaye bul ko découragé loo mu war a dindi kolam. est-ce que war nañoo forcer nit aussi muy muuru. Mm-hmm. parce que loo xamante ne sa xol nga ko war a defee. ou bien mm-hmm. jàpp nga ne mode la. ou mm-hmm. bien dara nga def ko un bon jour parce que bari na ñoo xamante ne muuru nañ. mais un bon ñu dindi ko yëpp am na fi. est que war nañoo forcer nit ki mu muuru. ak. Euh, aussi kuy muuru est-ce que waru am yenn attitude parfois da nga gis koo xamante ne dañ naan ko muuru dafa war a se moo a am kersa am na ñoo xam ne seen kersa mhm. te muuruwuñu yor nañ lu bari loo xamante ne sax ku muuru mën na ko bañ am ci vertu nga xamante ne nit am na ko est-ce que war nañ koo forcer islam forcé na ou bien da nga ko war a def am ne yàlla moom lu leen mayee ñu muuru sa sant yàlla la parce que day mel da leen di feeñu mhm. loolu lan nga ci mën a kii euh, baarakallahu soxna si hmm. ñu ngi lay ziyaara bu baax question bi am na solo parce que loo xam ne yàlla moo ko digle yàlla moo ko wax yeneen ti yàlla Muhammad xam nga keroog di di ko nuyuwaale xalifa général des Mourides. di nuyu xalifa généraux yëpp. di nuyu tamit suñu ma sëriñ macha allah mbay si Mansour di ko ñaanal yàlla di ñaanal yàlla xalifa généraux yal yàlla saxal leen fi ci barke yeneen yàlla Muhammad keroog xalifa général des Mourides ba mu joxe ordre. ñëpp a def te pourtant yàlla moo ñëkk joxe ordre moo ne yent bi xulli azwaajik waxal say soxna wa banaatil mu'minin wal banaatik ak say doom wa nisaaul mu'minin ak jigéenu jullit yi yudni alayhinna min jalabihinna ñu muur seen cër yi parce que jigéen boo gis muurul nee ko xëy muurul parce que yàlla moo ko santaane hmm. jigéen boo gis muurul soxna si nee ko muurul parce que ordre la ordre. Mm-hmm. te ordre nag jëfe yàlla moo ko santaane soxna si. xam nañu ne c'est pas une ñooñu xeex diine moo leen tax a jóg ak xeex ak xeex lislaam gis nga waaye mënuñu si dara leeru yàlla bi lislaam yàlla bi yàlla nee day jolli day jolli te ku si ku si dugal sa loxo pour yàq yàlla nee na maag yow la jarul tiit jarul ragal naan du forcé du nangam dañoo jàngul wala dañoo déglu oustaz Aïdi Niass mhm. dañoo déglu oustaz Iran Ndaw buñ leen dégloo dañuy xam lan la yàlla wax si lii kon des fois c'est c'est que ordre la. Mhm. Euh, yàlla def ko wàccee ne que nañ ko def jëfe par force. Mhm. mais des fois da ngay gis ay ay soxna yoo xamante ne nii. Mhm. seen i borom kër ay kilifa la. Euh, soit ñu nekk ay oustaz wala ay imam. mais ñooñu en général ñoom ñoo lay daq diw ba ba xees pecc. ñoom ñoo lay dàq également jël cheveux naturel ba mu gudd. après tu ñooñu waroon nekk suñu référence que hmm. boo gisee jabaru imam ah imam euh, imam euh, imam Khalifa Babacar loolu aussi dama la ci dama ci interpellé bu baax a baax dañuy gis ñoo xam ne dañuy woote ne diine la ñuy woote hmm. euh, di woote ne bu ñu génnee ci mbedd mi di leen jox ay ordre soxna yi di leen lii di leen lii wala ñuy xutba loolu hmm. te boo demee seen biir kër seeni doom du nu muuru ah seen i jabar sax ñoo dàq diwu wala ñoo dàq def cheveux naturel également day poser problème voilà wax nga waaw imam yéen ñaar ku ci yéen ñaar yëpp bi interpellé nañu xam naa yomb na tontu. parce que fi ñuy jëlee euh, alxaaji Ibou Sakho yal na yàlla yokk leeram. Mm-hmm. de passage ñu ngi nuyu suñu xalif général. muy euh, Cheikh Mouhamadunil Aboubacar Sy. al Mansour. di nuyu a Cheikhul Khadim Cheikh Mouhamadou xalif général des Mourides. Mm-hmm. moo gën a nekk lu gàtt. Mm-hmm. di leen jox seen wàccuwaay waaw question bu ñu ci dellusee. Euh, alxaaji Ibu Sakho def nii sama gàmm day ku fekkewul fu ma commencé mm-hmm. ak fu ma jeexale bul interpréter suma gàmm mm-hmm. waaye bu fekkee ni ñu ngi wax ci wàllu muuru mm. ak question bi tax ñu def ko actualité mm-hmm. suñu ci delloo gannaaw tuuti rek dañu ciy ma mën wax wax bu gàtt boo xamante ni ñett am yaa ayyuhar rasul yàlla daf ko wax mooy yow ndaw li ma yónni muy sayyiduna muhammad sallallahu mu ne yaa muhammad mais mhm. bii nag yaa ayyuhan nabiyu la wax mhm. lan mooy nabiyu d'abord ngay xool mhm. ak fu yàlla nar a jëm cent vingt quatre mille prophètes ñoo am cent vingt quatre mille ci cent vingt quatre mille yi yàlla seppi ci trois cent treize personnes prophètes cent vingt quatre mille yi boo ci moyen trois cent treize trois cent treize yi la yàlla woo déey leen ba pare ne leen dem leen ngeen jottali li ma leen déey kon missionnaire lañ yoo xam ni dañu amee seen portefeuille la ca des ci cent vingt quatre mille yi dañ leen a déey ba pare mais yónni leen pour ñu dem jotal kon ki ñu yónni pour mu jottali dafa am ñu mu war a fekk yónni ko ci xaar yónni wuñ ko ci garab yónni ko ci jamaadaat yi dañ ko yónni ci kan lañ ko yónni ci nit nit kooku nag la mu war a njëkk a xam mooy lu tax yàlla sàkk ko ak lu yàlla namm ci moom bu ko xamee ba pare dootul jarati ñu koy wax naan ko kii kat sama royuwaay la waroon na def te deful kon danaa ko fekk si ci ñàkk def googu kooku du wax boobu du dem parce que ba yàlla di wax def ni yaa ayyuhan nabi mooy ki nga xamante ni yow ñëw na yebal jibril mu sukk ci seen nopp déey la xul àddul waxal waxal xam nga moom dañ ko déy mais dafa ni waxal njëkkeel bay ci sa wewu tànk njëkkeel ci say soxna lu tax yàlla wax ko loolu parce que ay soxnaam royukaay lañ am na fu ko yàlla indee moo tax débat bi euh, dafa yomb rek dafa yomba expliquer mm-hmm. xañ na dañ koy def rek parce que dañuy jël temps mais texte dafa am texte coranique yoo xamante ni bu xasee ba wàcc. jaam bi amatul sañ-sañu naan ma def wala du ma def. def rek lay def. rawatina nag ba mu njëkkee nag ci ki nga xamante ni moo tax alxuraan wàcc mu di Seydina Muhammad ba mu ne ko waxal sa soxna yi. nañu muuru. waxal jëmul ci sa soxna yi de. jigéenu jullit ñi. nisa muminin waaye nag loolu moo jar a xam loolu moo jar a laaj. ñan ñooy nisaa ul muminin waaw mooy jigéen ñi nga xamante ni dañu gëm yàlla. waaw kon yow fexeel ba bokk ci jigéen ñooñu. boo bokkee ci jigéen ñooñu rek day daal di sotti kon su boobaa doo seet waxu Penda Mbow nee na ñu baal ma ma tudd tur. ñu jéggal ma doo seet waxu Ahmed Khalifa ñas nee na déedéet da ngay seet lan la yàlla wax. parce que texte la alquran amul arab yee ko moom amul aajami yi ñoo ko moom. texte bu wàccee jëfee rek. xañ na danañ toog ci xadis ñu naan fii ixtilaafaat ahadis yi ñëw ñu ne bon xadis bii ndax wér na wala wérul mais ay alxuraan amul luñ ciy naatable amul luñ ciy naatable jëfal rek nga jëf ba mu sante ay soxnaam pour ñu roy ci ay soxnaam la soxna yi mel ni yéen mhm. roy ci ay soxnaam kilifa diine gi ci kër gi tamit xam ni dañ ko royloo kan ngën gi mi def ngën gi mi def kàddu wàcc na ci yàlla jëm ci moom mhm. kooku amul interprété ku ci débat da ci ciy débattre rek wax naa ko benn euh, place boo xamante ni rajo publique yi la euh, ñu posé ma question ma ni loolu du débat loolu du débat ndax war nañu muuru ndax muuru dikk na ci lislaam wala déet loolu du mhm. waaw kooku tanaqut la ak dugg ci yoo xamante ni tabarkalla dafay nekk loo xamante ni ëllëg suñu njaboot yi ñëw ëllëg dañuy yàq seen réputation am na solo suñu njaboot yi ñëw ëllëg dañuy dem ba jàpp euh, lislaam comme un bout de bois da di neex ñu jëfe neexu ñu def lu leen neex mais muuru charia la moo xam imam ba toog ca kër ga jabaram di xëcc greffage deux cent mille ou trois cent mille di ko langal mhm. wala jabaram soxnaam ñu baal ma ci terme bi sax soxnaam ñàkk muuru mais kooku dafa def loo xamante ni ah, moom responsabilité sax nekkul ci moom d'abord mhm. moom imam ba mhm. nekkul tamit ci sëriñ bi xam nga Seydi Hadj Malick dafa maye doomam muy dem di sëy yi mu koy yeb bi mu tourné na ko soxna si boo demee noo nar a séy sa borom kër mu ne ko lu ma digal ma def lu ma tere ma bàyyi Maodo ne ko boo ca dee musiba fekk la boo ca dee safara nga jëm benn boobu la Maodo tudd safara boo ca dee safara nga jëm xool maa ngi wax yéen ñëpp ngeen ni parce que lu ma digal ma def lu mu ma ma bàyyi parce que on a l'impression de voir que loolu moom mooy li war a am mais du foofa moo dafa muy waxee feneen la ndigal ak tere yaa ngi ko war a jànge ci sa kër bàyyi sa bàyyi la ko war a jàngal ba pare moo tax ñu ne la doom boo ko amee na koy amee da nga koy préparer ka nga koy amal da nga koy préparer ba bu digal ne toq ci noppam du hésité mhm. mu ne ko nag da nga war a jàng ndigal ak tere ci sa kër bàyyi boo ko jàngee sa kër baay ba pare mhm. da ngay dem sa kër jëkkër réciter ko fa yóbbaale ko fa am na solo contribution bi imam euh, Khalifa Babacar Ndiaye xam naa ne tey moom débat bi ça promet ah. que le Hajj Malick si la ñuy dugg. voilà ñu daal di wéyal rek ak Fanta. waaw euh, daanaka defe naa ni laaj bi foofu la euh, ndax am na laaj bu buñ la doon laaj sànq. di di allah al di ko ziar bu baax a baax am na solo trop